السلام عليكم ورحمة الله بقي نجي نوي دلنا زيار لين بالحق نان برمي سبحانه وتعالى مولين جقل حديث طيب لفاي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمير صحيح البخاري حديث bi ci ko nettali mooy jaabir ibn abdillah radiallahu anhu moo xam ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam lekkuloo na leen yàpp fas waaye mu daal di leen tere yàpp mbaam xadis bi mu ngi ci saxiixul buxaari wan texte bi taxoon yonent bi xaraamaloon yàpp mbaam mooy ci xare xaybar bokk na ci xikma ki dafa gis ne mbaam moom li ëpp ci li ñuy transporté ci wàllu bagage booba moom lañ ko doon yenn loolu bokk na ci ak yeneen mbir yoo xam ne moom la mbaam làmb ci la daganal ñu lekk fas te ñu bàyyi mbaam di ko lekk lekkam fas googu nag ndax dafay dagan wala dafay dañ ko sib wala déet am na ci ay wax yu ci néew bu dee ku mel ni imaamu Shafii ko daganal dara nekku ci bu di imaamu Malik ak imaamu Abu Hanifa moom dañu wax ne dañ ko sib maanaam yonent bi daganal na ko sallallahu alayhi wa sallam waaye dagan gu ànd ak la waaye kon yàggul ci xaram lekk fas yàpp fas yàggul ci xaram fe lu mat la bi ñu xam ko loolu mooy li tënk xadis boobu aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh